Bayır, bayır, bayır, bayır. waaw léegi nag léegi nag xanaa war nañu mën a continuer liggéey bi mane waaw maa ngi leen di ñaan léegi ñu continuer liggéey bi waaw ku nekk na toog place am regagnez vos places regagnez vos places nous allons poursuivre nos discussions